Why you don't see you long time, Senegal? ah doorati nañu aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmani rahim nuyooti nañ leen yéen ñi nga xam ne yéen a toog scotché devant la 2STV la grande télé la télé autrement la télé culturelle ah. tey nag bu ngeen ma gisee ma ubbi xam ni sama góor xam naa ni wàccaay tabaski beek a jàpp ak li nga xam ne mooy li jëm tiw xar waaye nag moom bu ko amul rek bu ko amee rek xam naa ni dina ñëw daal di ñu ci sedd mais ñi ngi ziar également kilifa diine yi kilifa aada yi di leen jox seen wàccuwaay waaye di sàkku ñaan bu baax ci ñoom euh, di nuy ñi nga xam ne ñooy téléspectateurs yi ñuy seet seetaan mais également du nuyu tey sama sama rakk bi ma bokkal plateau muy soxu bébé ah sama soninke bi nga xam ni tubaarkàlla macha allah moom étoile la da ngay taxaw da ngay taxaw fu nekk di ko seen nuy naa la la plus belle nuyu naa la magu jàmbur Thiam Babel Demba Thiam man nee naa la famille Thiam bi boo ci amul jëkkër amoo ci jabar da nga ciy jéem a wut xarit. waaye man mag laa ci wut est-ce que duma la ci may jëkkër laa ci wut bàyyi ma ah. jàpp la rek sama baay. <laughs> salaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal ji am mbégte ak contentement bu mag di jàkkaarloo ak yéen ci télé bu mag bi nga xamante ne mooy la 2STV. tey nag comme ni ngeen ko gisee Papa Ndiaye dafa xaw a daw xam naa tabaski bee ñëw. <laughs> li jënt bi xar beeg yooyu keroog mën doon yoole waaye tey nag man maa lay yoole di nuyu kilifa diine kilifa aaday di nuyu également ñëpp ñi nga xamante ne ñoo safoo la 2STV tey nag man ak Sofia ñoo fi nekk nar a pelloo affaire bi nar saf waaw dëgg neex yow xam nga saa su nekk bu may jàkkaarloog yow mbégte laay am parce que sama rakk ju baax nga euh, sama rakk ja nga xam ne wax dëgg yàlla <laughs> da ngay mër daal mais yéen ñi nga xam ne a toog di seetaan tàmm ngeen ko ci émission bu baax bi du lundi au jeudi lay doon leen ko waxati ci heure bu baax bi 17 heures ngeen jàpp li nga xam ne mooy la 2STV bi nga xam ne moo leen di gunge ci ci seen ngoon di leen divertir muy na neex mais dugg si leen ci 88 628 14 13 ñu daal di mën a jàkkaarloo mën a waxante yu baax mais tey nag également. Mhm. Euh, tey dañuy waxtaanee li nga xam ni mooy wàccaay tabaski bi. mais laataa loolu est ce que duñu dem laal clip daal di yëngatu tuuti. daal di ñëwaat dañ dem laal si daat rek. <laughs> waaw ay ak rafet ak a jongo ay. Eh, eh. doo toog lii la na la <laughs> tubaarkàlla tubaarkàlla macha allah. Mhm. waaw waaw waaw bëggati naa waaye mhm. bëggati naa sama xol seddati naa tey bi ma dégloo clip bi ba déglu ci ay tuur yi nga xamante ne. ñooñu samay mag lañ ko ci mel ni aada sant yàlla boutique ak Maysa man presque man kër googu laa bokk mhm. te aussi di féliciter euh, Sidaat ci clip bi mhm. mu def parce que mhm. moom naanaan bu mag la aaw na fi ku nekk tëggal na fi ku nekk loolu kenn dootu ko werante ci ñun réew rawatina clipam bi nga xamante ne daf ko bi mu ko génnewee gis nga nit ñi nu ñu soloo nu ñu ko bëggee ni nit ñi soloo da ngay xam ni que lii neex na Sénégalais yi donc dañ lay féliciter yow Sidaat di courage. kookooy kookooy l' artiste civilisé loolu laa ko tuddee mu nekk Sidaat Bombo moom lu mu fi génne lu nekk rek wax dëgg mm-hmm. yàlla challenge bi day daal di doy waar. Mm-hmm. ba tax na bul ma takkal bi ah ku ci nekk ku nekk gis nga ci sa bopp. parce que soxna kat bu yoree oto. waa du bëgg kenn ku ko takkal daal dëgg neexul ah rawatina bu weex. déedéet du namm dara <laughs> <laughs> mais une très belle vidéo également maa ngi ciy gis sama copine ah Alice Borom Liberté 4 tubaarkàlla taaral nga clip bi macha allah mais Sidaat Bombo le meilleur reste nga kenn du yow ci ci réew. dëgg neexu mais également maa ngi souhaité un joyeux anniversaire ak ki nga xam mooy Euh, DJ Laye depuis Gabon c'est de la part de papa manager ñu ñaanal ko rek. waaw di ko ñaanal di la souhaiter un joyeux anniversaire di la ñaanal li nga xamante ne moom nga bëgg yàlla na ko suñu borom bi may. Uh-huh. lu jaar ci Sofia rek jaar na ci man. parce que la waaw <laughs> ah, dëgg neexul benn la sama rakk ji tubaarkàlla ñàkk ki ñaan baax ma en fonk loolu moom euh, seede naa la ko. waaye nag dañu jëm ci li nga xam ne mooy wàccaayu tabaski. te wàccaayu tabaski li ci nekk ci ay risque dafa bari soxna. boobu ba léegi ñu ngi ciy waxtaanee. Mm-hmm. mais di conscientiser tamit des xam nga rek dëkk bi ak fu mu toll nii ñun ñu ngi am as tuut bu ñu mën a wax euh, vis-à-vis ak sunu morom ngir jéem leen gindi ci li nga xam ne peut moo mhm. ci wàccaay tabaski ak anam nuñ koy amee loo gisee loolu euh, Sofia li nga wax noonu rek laa lay fekk si parce que Sénégal ku ne xam na ni que événement sur événement loolu lañuy ñuy dund dëgg la parce que bi ñu jógee ci euh, korité dafa yàggul dara bu mhm. defee ñaari weer wala benn weer ak xaaj mhm. ci lay yam donc mënoo nekk li nga frais ci korité bi moom nga bëgg a frais ci tabaski bi loolu moo ëpp frais sax moo ëpp frais foofu mhm. junni fukki junni yoon mhm. farata bi rek mooy li nga xamante ne mooy xar bi waaye yëre bu bees du du du du farata. Mhm. Euh, cheveux bu bees du farata. Mhm. donc li nga xamante ne moom la ñu moom la ñu suñu borom digal loolu la ñuy farataal te mooy xar mi. te aussi ki nga xam ñi nga xamante ne dañ ko jël yóbbu ko fi nga xamante ne yeggu fa kenn waxul ni reyu tabaski moo gën a rey ñun mhm. jullit yi loolu la am. loolu la ñu ndamoo moom moom la ñuy sagoo. mais léegi xale yi jigéen yi dañ ko jël comme pas possible. parce que dafa am esprit bu ñu doxee soxna esprit defante bi daa nekk ci ñoom. et pense que esprit defante bu nekkee ci yow rek ci sa bët da nga koy yàq da nga naan kat sama nawle bi nga xam ne mooy soxna du ma du ma ëppale dara ci tabaski bi fu mu tegee cheveux dinaa teg bu gën a gudd fu mu daggee jesne 3 mètres dinaa dagg 6 mètres war ne ko li nga mën mën naa ko taxal genn wàllu gi yëpp nag xool xam naa tey dinañ ma sànni xeer liggéeyuñu goruñu yettuñu te ñoo dàq sañte ci tabaski bi boo xoolee tey xale jigéen ñi. ñoo fees marché. waaw waaw ñoo fees ci marché bi lan moo tax tey nit ñi di ñëw di jaay ci marché HLM bi tey man boo doo mën a romb boo jógee HLM. H&M, Sofia jigéen ñi rek a tax. ñoom kese fa ne boo demee Sandaga doo mën a romb téyeer yi seen xel dalatul nelawatuñu ba yandoor. dëgg de bilaay jaaykatu xar yee ngi toog di xaar xar yi <laughs> pour mu dem. doon waar daal nañ dem jëndi xar waaye te bàyyi nañ dem jëndi xar te xam naa ni moom wax dëgg yàlla li ci farata comme li nga wax rek mooy xar bi te je pense que aussi itam dëkk bi toll na fa nga xam ne metti na torop ñu ñaax aussi jaaykatu xar yi ñu am yërmande même bu fekkee astut lañ ci am sax waaw ñu dawal yërmande ci askan bi daal parce que dëkk bi dafa xaw a metti te ñu bëri jotuñu seen loxo jotu seen ginnaaw et je pense que tey wax dëgg yàlla comme li ñu wax ni rek ñu ñuy indiwaat tuuti xel yi daal ci gaspillage bi à travers ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci réew mi di doomu réew mi mhm. dafa am ñi nga xamante ne dañu jóge fu sori pour ñëw bay seen waar mhm. di jaay seeni xar mhm. waaye dañuy ñëw di sàcc waaye am na xar yoo xamante ne sàcc di mel ni pour léeg màlli ci xam nga loolu téléphone yi yoo xam ne boo ko sàccee doo ko tufe <laughs> doo ko doo ko tufe <laughs> di ko delloo par force. <laughs> par la force day dem loolu moom dëgg neexul mais également yéen téléspectateurs yi ci ngeen bokk ci li nga xam ne mooy émission na neex tàmm ngeen xam naa ligne bi moo saturé te rek comme d'habitude parce que bu saturé nii lay demee. mais dugg si leen ci 88 628 14 13 ngeen mën a waxtaan ci li nga xam ne mooy thème bi ak Pello ak ki nga xam ne mooy soxna dëgg neexul ak ah, ci li nga xam ne mooy beneen clip nga temps bi dafa gaaw moom. faaw ji yëngatul ba mu neex sama rakk ji cuum sa jàllaabe baax na su ma la wage bu paree rek mën naa ne di daal di doxantu rek daal di yëngal yaram yi cuum na kii mooy Titi borom bari bagage ah moom mi nga xam ne mooy waajal le 17 août incha allah fële ca Grand Théâtre mm-hmm. ah ñëw na fi nag keroog wàcce fi dëgg neexu nekk présentatrice nag daal di ma yëngal nangu sama place bon naa ko fekkee waaye ma deux minutes rek ma naan ci aquaterra bi bëgg a mën a jàkkaarloog yow wax ak yow ci titi lu baax waaw <laughs> yaa ngi dégg gis nga titi euh, Sofia mën naa la ne man titi bi ma koy bëgg ndeysaan boobu maa ngi woon ñëpp ko bëgg ñëpp ko bëgg bi muy njëkk def anniversaire am grand théâtre dama fàkk dem. yaa eh, eh, nga fàkk dem dama dem. laay tey la sa papa di la rey yaa révélé loolu bi ngeen ko invité wee woon. buggoon naa fekkee ko te en plus macha allah. yàqul carrière bi mu commencé wooy ba tey fi ñu koy dégg. ca kaw rek day yéeg ca kaw. Mhm. doo ko mës dégg titi ci lii wala titi ci laa. macha allah macha loolu dafa baax ci artiste euh, nu mu tudd soxna parce que artiste il faut ngay nangu defar li nga xam ne mooy sa plan de carrière. Mhm. comprendre nga ngay liggéey lu bari li nga xam ne wax dëgg yàlla da ngay egg benn niveau ba nga xam ni boo ko mënul dépasser fa ngay yem liggéey moo la ko may je pense que Titi fi mu toll ni liggéeyam moo ko may ak li nga xam ne mooy mën wayam ak tarbiyu parce que jeune kii ka nu mu tudd euh, artiste il faut ngay nangu di tarbiyu parce que Titi aw na ku nekk macha allah aw na ku nekk dem na fu nekk te déggoon naa fi sax nekkoon na fi feccikat ah feccikat la woon bu ne dar fii ñun ñi ñëpp dañuy lem suñu genn daal di duñ ko ëppalee dara de dëgg tubarkalla moom euh, incha allah dinañ ko am fi nga xam ne mooy sa émission. vous et nous dina fa ñëw samedi bi passé tiitee fa nekk. ñuy wax téléspectateur yi rek ñu daal di scotché heure bu baax bu jotatee rek. ñu jàkkaarloog waa Titi ak waa vous et nous. ah kon xanaa boobu di nga kontaan comme fekk ko fi bég sama xol bi day sedd guy lay def damay ragal nga def daal di basket rek fu mu naawee rek nga pàkkaan ni tewet ba xam nga yemoo <laughs> da nga raakaay dama dama pël mu belli wee ma aj ko ba ci kaw <laughs> mais ñu ngi nuyu ñi nga xam ne également ñooy suñu ay technicien ñoom sonn nañ ci ñun saa su nekk ñoom <laughs> wax dëgg yàlla sonal nañ leen ah suñu ay réalisateur wagee bira ñoom ñëpp en ah, roqaya bàyyi wuñ kenn suñu cadreur yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk régie parce que nekk ci kër ñu nangul la di la conseiller ak di la di la toppatoo di la waaw dafa neex daal ak waa rédaction aussi duñ leen fàtte benn yoon c'est que ñoom dañoo tubaabe trop waa rédaction ay journaliste lañ ñoom duñu ah, wax wax nga kenn waaw moom Moussa Sène moom mi ca biir sax. moom dafa tubaabe du wax sax bu baax la dégg ko waaw ay ñoom Kumba yooyu <laughs> noonu ay ja Cheikh Jaabi ñooñu. ak ku tuuti ku tuuti dañoo seetlu daal ku tuuti mooy kan yaay wax ku tuuti ki fii ñoon dañ karaté de journaliste ka ma waxal seen secret duñu wax waaye dañuy karaté ñëwee ma leen de yow ñëwee nga leen viet voren la ñuy def dóor la chemise ba ma seen tubéy rek aj ko ba ci kaw wala daa yaay journaliste yi xam ñu ngi toog di seetaan seen bureau fiñ toll nii sax na yéen lay jëw nee na li ngeen di waada daa ci tàngaay bi da ngeen koy wàccee ndànk rek dafa tàng dafa tàng ñu daal di koy fa rek da ah. waaw <laughs> mais wax dëgg yàlla nekk na lu am solo ñoom tamit ñu baax nañ ci ñun lañu bokk parce que saa su ne nekk booy def émission yaay gis ku la woo ci ruku ne la defeel nii waxeel nii te lool rek ngir bëgg liggéey bi jëm kanam mm-hmm. ndax ñu ñëpp 2STV yi mooy sunu waaye tamit moom la ñuy sagoo saa su nekk am nañ bégte kontaante wax dëgg yàlla ci yéen ak lamp nga xam ne mbubb day perturbé rek lakkale lakkale boys waaw moom dafa lakkale daal mi ngi noonu rek dafa lakkale de xam nga lamp dëggantaan jaay ci dëgg dëgg yàlla soppi waaw moom moo ne ci kër gi rek bëggu ñoo lëmbee saa mu jullee loolu laa koy ñaanal yàlla eh. yàlla na ko yàlla soppi ci bépp côté eh, mbub soppil Lamp Gueye borom parcelle xaw ma borom golf soppee eh, dëkk na Liberté 6 <laughs> dëkk na Castor SDF SDF. dëkk na Medina <laughs> dëkk na ville. SDF <laughs> Mbu Lamp Gueye acca jëkk ci ligne bi allo allo. allo allo. ci loo ne. Amore yow yaa baari woon ligne bi dégg naa ligne baa ngi saturé nga nekk première daal di koy baare. ah. baarewuma leen sax de. ah yaa leen buux noonu. yaa leen buux naa ngi ci dugg. kon bu buux nga leen yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm sañ sa ngeen de. ah ñun waa ñun xam nga waa tiim na neex nii la ñuy def. xam nga yaa ma gën a xam tey dafa tàng. ñu daal di def ah def ngeen ba mu ba mu tëgg sa boobu. waaw tëgg sa tëgg sa boobu. waaw dama ko defee daal man saf na ma bëgg naa lii. bëgg nga lii. waaw jeex na tàkk yow dama lay paas ki nga xam ne mooy soxna. Papa Ndiaye xanaa ñëwut tey. Papa Ndiaye daal di jënd ji xar fi mu toll nii dem na daraal ba daraal ba lay wëri xar te xam naa ni parental lay lay am moom. ndax dana wax xale ah, boo ko waxul xaayam jeex. <laughs> na ko ci Pape dafa am classe. Pape mi ngi noonu rek kenn mënalu ko dara mais yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm kontaan naa ci émission bi. ñoo gën a bég ci yow amoon na tudd. maa ngi tudd Binta. Binta nan foo ñu woowee. Binta Ndiaye. Ndiaye Diatta Ndiaye borom Sénégal. waa déggil ma lii. dégg naa dégg naa Sénégal Ndiaye la sant. kañ la ñun dakkal suñu wàll ñun caamee ni. waaw dama lay jox sa wàll. waaw ah, ñun ñoo moom Dakaru de may leen ñu Dakar rek. ah yow dama lay jox sa wàll. waaw ah, cuub yow da ngaa baax da ngay séddale xaar ma passé sama rakk ji sox bébé. baax gën riis waaye bu la séddee faaw mu sédd ma man mi ah, suñu. déedéet ci Casamance la jëm wala Ziguinchor Sonko la sant. non da nga <laughs> ndax man ci réew mi daa bokk. <laughs> dafa détaché wu rek. <laughs> ci nekk. maa ngi nii rek yaay miñoon nii. naka ngay waajalee tabaski bi. tabaski bi ah. Mm. maa ngi koy waaj waaj bu simple. bu simple. bu simple. ba sonaloo sa bopp rek ci jëndum greffage ak jesner di sonal yaay booy wala sonal jëkkër ji wala kii bi ñu mu tudd bi rek. non ah, sonaluma sama bopp nag. ah man damaa bëgg jigéen bu doy lu benn fan la rek. damay def lu ma mën dong nag bu ma tëddee nelaw. billaay danga boo tëddee dangay nelaw sax. waaw dëgg neexul bu ñu ko metti bu ñu ko mettilee rek mu metti. billaay wax nga dëgg ba pare benn fan la tam xarit léegi mu ñëw Noël léegi mu ñëw day metti daal teg lebe. couverture événement yi bu nekk di ñëw màggal Tuuba leneen leneen ak leneen. billaay dëgg la mais yàlla baax na yàlla nañu yàlla may xolu muñ rek ñu fekkee ko ci jàmm rek. amiin amiin amiin mais def ngeen daal macha allah kontaan ci yow Binta. ñoo leen gën a kontaan jàmm si yéen. allez gros bisous merci beaucoup c'est gentil. à mais soxna bu ñu nekkee ci li nga xam ni mooy wàccaay tabaski suñu xel day dem directement ci ñi nga xam ne ñooy uju aji waa Màkka mhm. e wax dëgg yàlla on a une très forte pensée pour eux parce que Màkka ne nekk nekk na la nga xam ni dafa neex dafa neex ci xol waaw dem fa rek dafa neex xalaat ko rek dafa neex asantuma laa nga dem fa ñu leen di ñaanal ñoom fa ñu nekk yàlla na suñu borom nangul leen seen i ñaan may leen euh, wér gu yaram ba ñu dellu si waat seen njaboot parce que ñoom wax dëgg yàlla waaw ñëwaat ci jàmm daal jàmm comme mhm. ñu koy faral di waxee rek euh, lépp looy dem rek pour wut lu baax mhm. loolu loolu yàlla daf la ciy jàppal gën gi mbindeef laa lay wax de jàkkaarloog moom ñaan ko rek mu lay nu la ñu ñaan yàlla ñun ñëpp moom la ñuy ñaan yàlla muy góor jigéen mag ak ndaw ñëpp jaar fa incha allah ba pare léegi euh, màkka amatul âge xoola ñoom mhm. Pape Cheikh Diallo dem nañ am na ay jeunes yu dem keneen ak ñeneen ak ñeneen te loolu nekk na la nga xam ni euh, diine du du tranche d'âge bi méttiwul daal parce que bu njëkk mag ñi rek lañ daan gis ñuy dem. Mm-hmm, mais léegi xale yi dañoo ñeme génération yëpp ay dem. waaw ko mënee rek def ko. def ko billaay allo alo allo allo allo. daa de wala fidd na. daan naaw. sa allo bi moo ko kii allo allo. daa ci ligne bi de. ah moom waxal moom ça va sëñ bi ñu ngi lay nuyu. tur bi foo ñuy wootee. maa ngi dégguma. xanaa yow moom julli gi neexagul déggaguma la bu baax de. Cees ngay woote. Cees benn dëkk ñaari gaar. waaw dëgg neexul foofu sama dëkk la foofu dafa neex. allo. daa mel ni daaw na de xam naa ñoom ñooy gën a yëg tàngaay bi xam naa tey ñu dóorati ma rek mais amuñu géej waaye foofu moom ñoom amuñu foofu rawatina sa zone bi boo ko fa tegee léegi léegi mu nekk omelette yaa wax lii omelette waa Thiès dégg ngeen li kii ma ko fa tegee <laughs> omelette lay nekk omelette lay nekk mais kaay ma wax la day nekk jaune d'œuf <laughs> yow ba waa Thiès jàpp la dama lay jaxaseeg ñoom xoolal lii nii mooy nekk blanc def bi <laughs> sa kii bi di <laughs> nekk ci kaw dootoo ko dolli bañ jàpp la. mais artistes yi artistes yi Adama Kandé ñu ngi lay béggee bu baax borom sport 2S allah yaa ngi def liggéey bu am solo ci li nga xam ni mooy la 2S TV. frangin ñu ngi lay ziar yaa Fatima ak Babou bu baax a baax a baax mais wuy ma Thiès artistes yëpp fa lañ jógee xaaral ma jël ko ci liñ bi ñu daal di ñëwaat foofu allo allo. allo Sophie. oui. lu bees. waaw maa ngi nii ça va. la. Ali Modou. yow la kan. Modou Modou. waaye Modou Khoule eh, la waay Modou Khoule wala Modou Gajaga. <laughs> lu mu ci lay Modou ah. li ma Modou Diaw la. ban Modou foo may woowee. maa ngi lay woowee Louga. Louga ani waa Louga. ñu ngi fi. Louga loo man daal waa Louga dama leen bëgg parce que dañuy eh, dañuy bëggee émission na neex tout le temps ñoom dañuy. émission moom vraiment neex na trop. neex na yéen a ngi koy yëg bu baax sax. ah yéen xam nga ñun ñun yéen lañ fi nekkal dëgg neexul. ah loolu moo loolu loolu am. naka Louga baa mi ngi neex. mais sinon. ça va tranquille xaar ma paas sa nga nuyu ko. waaw jamono bi allo. allo waay soxna. maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay nuyu ziar yàlla na ziar. lu bees yaa ngi tabaski bi. waaw waaye waaye rek wala xar moo bees wala yére lim lay lamsal lim lay nii daal man daf maa neex. waaw lay lamsal. ah yow de dina ko rafetlu yaa ngi may gis lan moo bees laa la wax. <laughs> non instant kat maa bees wala kat moo bees. wuyu ma sama waa soxna soxna mi ngi lay xëcc ci pet te yëgoo ko nee na moo bees wala kan moo bees. mais nag vraiment eh, vraiment kontaan bi ñu ko defal naa yëg naa vraiment jikko bi rafet na vraiment suuf si merci di lépp ak jàmm. amiin yaa rabbi amiin ñu ñu ñu ci jàmm kontaan nañ bu baax ci ñoom soxna ñii ñooy sunu ay force mhm. dëgg yàlla ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy béggee la 2STV te Sénégal euh, bari na fépp bari boo xam ni maanaam ci ay région yi nga xam ne fa lañ nekk sous région beeg yëpp dañu bëggee li nga xam ne mooy la 2STV ak euh, émission na neex ñu seen fayan waa Mauritanie Louga Kaolack mhm. euh, waa diaspora en États-Unis France ñoom ñëpp saa su nekk dañuy jot li nga xam ne mooy seen ay retour ci Instagram bi xam nga mhm. ak euh, voilà ci téléphone ci YouTube beeg yooyu noonu mhm. parce que des fois di nga dégg nit na la dooley jën ndox la waaye nit nit ay garabam dëgg la parce que ñun mënuñoo dem sans ñoom donc à tout le temps dañ leen di bàyyi xel di xool li leen neex. ñu di ko def ñu di leen ko def loolu ñu. parce que ñoom loolu rek lañ ci am parce que émission bi saa su nekk bu ñu jàkkaarloo weeg heure bu heure bi jotatee rek ñu jàkkaarloo ñu neex dañuy ree bay bëgg a dee. waaw waaw dëgg neexul borom allo Bombay loolu la wax démb. allo Bombay allo Bombay. tantanga tantanga tantanga laa la wax de man du ko nangu mais wuy ma nañ dem laal clip daal di ñëwaat bu ngeen ñu may rek ñu daal di féexal suñu xol féexal li nga xam ne mooy xolu téléspectateur yi daal daal di ñëwaat ci li nga xam ne mooy plateau na neex ay cawaage mën naa laa ko tuddee tubaarkàlla moom mooy le parolier deuxième parolier ndax sunu papa papa coon mooy le premier parolier la lu mu way lu nekk rek téere la ba tax na saa su nekk dañ ciy jàngat ah mu way lu am solo way li nga xam ni mooy xale jigéen ñi ñu daal di daal di gën a defaruwaat rek daal di gën a toogaat daal di gën a xaaraat rek ba bis bu rafet daal di ñëw dëgg neexul mais l' émission tire à fin soxna dama lay bàyyi nga daal di tàggatoo après ma tëj comme Ndiaye bi <laughs> nga jox ma <laughs> <laughs> nga jël caabi yóbbu ba suba. ayca bàyyi ba sëb li ma tàggatoo. tëj bi lay bañ a dégg jox ma lamb mu tëj jox ma jox Sofia jox jéeg wi jox Adjma tëj Sénégal yóbbu caabi tëj ko. so papa Ndiaye amul waaw Sophia gis nga rek mbégte la woon ak contentement bu mag di jàkkaarloog suñu ay mbokku téléspectateur xam naa ni moom dañ leen di jox dig daje après tabaski rek incha allah man moom après tabaski laay ñëwaat. Ah, di remercier Fatoucha Beauty tey moom moo génn fii yóbbu ma ba Dubaay. gis ngeen dëgg neexul nii la ma def. ci ah, ci ci abbaaya nii la ma def. ku ko bëgg a jot da ngay woote ci 77 150 27 39. di remercier aussi également euh, Moussa depuis marché HLM tey moom ma génnee ci cheveux bi. macha allah gudd non. <laughs> waaw ku ko bëgg jot moom aussi da nga koy woo ci 77 964 48 48 merci beaucoup ciao ciao à la semaine prochaine merci beaucoup bébé yow saa su nekk damay am mbégte te bokk ak yow plateau sama rakk ju baax di caatu 2STV mhm. mais également di remercier ñi nga xam ne ñoo toogoon du ñu seetaan lépp rek ngir bëggal leen moo ñu tax a jóg mais di remercier également aussi sama jabar ji ma def nii muy Anita yaayu Anta yaayu euh, maam Ngaan ak ki nga xam ne mooy Mama Fatou jóge ba pari ne ma tey dama lay def tubaab xam nga man dama damaa tubaabewul damaa rëbb waaw mu ne ma tey daal dama lay def tubaab nga daal di tubaabe daal di dem jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy euh, askanu 2STV saa su nekk nii la doon demee mais di leen jox également dig daje ba suba incha ba ba après tabaski bi waaw ba après tabaski bi di fa jaare rek di leen baal àkk di leen baalu ak wax dëgg yàlla di leen ñaanal ngeen fekkee ci tabaski bi ci jàmm ak salaam yàlla bu kenn manqué ah, yàlla bu kenn manqué yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi bañ fekkee ko ay at yu bari di leen jox incha allah di daje ba semaine prochaine rek dëgg neexu ci émission na neex lamp mbub bëgg nañ la bu baax jaajëf merci long time.